nañ génnoon sama benn vidéo si YouTube bi si affaire de santé de redressement Daaru Salaam loolu la xam ne kii filmé vidéo bi ba dugal ko si internet bi filmé na ma sans mon aval waxuma woon da koy dugal si internet bi moo tax ma demee ba toog ba gis kàddu yu si génn yooyu ma ne ma ne xaar bi jégalu pour jégaluwaale population bi jégalu mbokku taal ndax dem naa ba xam ne lii du dootul affaire de vidéo wala affaire de centre centre de nga ne si bëgg jël sama image pour jaaraale si pour seen te man en tant que taalibe Cheikh Ahmadou Kara Mbacké ñu man du ma nangu gars yi gars yi gis nañ ko te ñun fas yéene dee waaw ba tax na nag man maa ngi jégalu population bi di jégalu mbokku taalibe yi surtout. di jégalu tamit kilifa gi surtout ak samay waajur ak samay frère wasalaam